daleen ak jàmm seen seen bii di Thiowli Buzz kii di président Macky Sall ci élection législative yi ñu génn bokkoon nañ ci jëfinam mooy mu jël ñi nga xam ne dañoo ñàkk xaalis ci réew mi di Sénégal daal di leen di dikk xaalis ngir ñooñee daal di ko votel ci élection yooyee loolee nasaraan di ooyee corruption passive maanaam neexal nit ki ngir mu defal la li nga bëgg loolee kii di président Macky Sall da koy def ba noppi daal di koy amal ay tour daal di koy tuddee ay programme kii président Macky Sall ci législative yi ñu génn ci correction passive yooyee ma doon amal la digge woon na ci paa yi doon dem retraite daal di yokk seen pension yi waaye tamit digge woon na ñi nga xam ne dañ doon jot bourse familiale ñooñee tamit yokkoon na seen xaalis waaye tamit digge woon na quatre-vingt mille francs yi mu waroon a jéppal la cinq cent quarante mille familles quatre vingt mille francs yi waroon a jéppal le cinq cent quarante mille famille yooye ginnaaw ba waa banque mondiale bi nga xam ne ne moom moo jébbaloon nguuru réew mii di Sénégal la financement boobee ngir mu jël la quatre vingt mille daal di koy jéppal la cinq cent quarante mille familles ci réew mii di Sénégal ginnaaw ba ñuy amal saytu ndax xaalis boobee jaarale nañ ko ci yoon dañoo gis ko ne ci xaalis boobee. gouvernement bu Sénégal dañ cee amal ay njuuj njaaj te xaalis buñ ci sàcc moo ngi toll ci 16 milliards de francs CFA. ci 16 milliards yi nga xam ne ne waa banque mondiale gisuñu ko nag ñoo ngi sàkku ci nguuru réew mi di Sénégal ñu indi leen ci lu leer nañ ngir ñu mun cee sukkandiku wala lu ko moy dinañ daal di song gouvernement bu Sénégal ci institution internationale yi. lu waral waa banque mondiale commencé di vérifier. xaalis yu ñu joxoon nguuru réew mi di Sénégal nag lu ko sabab moo ngi jógee ci rapportu Covid 19 bi ndax ginnaaw ba rapport boobee génnee waa banque mondiale dañoo gis que ne ndeke ba ñuy dimbalee réew mi di Sénégal ci période Covid 19 bi amoon na ay ministre ak ki ñu bokk ci gouvernement bi ñu doon sàcc xaalis boobee boobu ba léegi nag ñoo ngi toppaat dossier yi nga xam ne dañ ko jébbaloon Sénégal ngir andi ci waat ay leeral xool ba xam ndax gouvernement bu Sénégal luubalul seen xaalis. wawala it?